tey baro àq yépp ma tàmbali siyaare bi ci di leen siyaare sëriñ bu mag bi fi jóge bu yàggul muy sëñ Sidi Moxtaar tan bokk nun ñi ñëpp ñun bokkee sëñ Tuubaa di ñaan itam sëriñ Muntaxaa mi fi nekkit yàlla dëgëral ko yàggal ko fi bala mu yéene liggéey lépp liggéeyal ko sëñ Touba ci taalibe yi yàlla ak sëñ defal ko Cheikh bas li nga wax dégg naa ko wante yaakaar naa ni noonu ngeen ko bëggee dana ni amee ndax sëriñ tubaa ci boppam yàqkat ñi mu ko seytaan yi ñu fàgg woon fàgg woon na leen bu yàgg yàgg yàgg kon nag dee leen rafet njortu tey góorgóorlu rek te taxaw ci seen Pastef ndax taalibe moom pastee fa ko yóbbu fu mu bëgg a àgg dana jafe nag ndax boo jógee seytaan yi jóg ni nee du fi amee wala yàqkat yi wala rabaay yi yooyu daa bari dañuy jóg ni amee waaye bu ngeen jëlee seenu jublu rek teg ko ci bëgg-bëggu sëñ Tuubaa bi ngeen def boobee dara du leen mën a dogale te dangeen ngeen dem bàgg ci rek yàlla leen ci yàlla ak sëñ Tuubaa jàppale ba ngeen am ko ba am ko sax nu ngeen ko foogewul woon gannaaw bu loolu wee sëriñ xamsatu noon na ma nuyul leen ko mu ne waxam jëm waxoon daaw ak daaw jéeg rek moo ci ne ndax lii jubluwu ci dar lu bëgg-bëgg sëñ Tuubaa nee nag xam na ni yéen a ngi ci waaye bëgg na ngeen góorgóorlu rek te bañ a naagu euh, bu ngeen ko defee ak seen pastéef ak seen pas-pas incha allahu la ngeen ci bëgg da ngeen ko am da ngeen dem bàgg ci bëgg-bëgg sëñ Tuubaa ba rëkk tey day ànd ak ibtixaa u mardatillahi fa sawfa nutihi ajran asiman waaw loola yàlla na leen ko defal mu ni sant na ñëpp gërëm na ñëpp xaadim na ko jottali taalibe yi waaye Cheikh Bass yow tam mbokk yi fi ne yëpp na ko jottali ak cantam cant na ñëpp daal bàyyiwul kenn waaw kon nag sama wax mën na cee bañ a bari ndax li ceeb ëpp bas mi la ko waxloo ci bokk yi li ci taalibe bi mu waxloo ko xaadim si la man damay tàmbali wax rek kon sama wax mën na cee bañ a sori waaye nag li may ñaan rek yàlla na seen tubaa euh, jàpp ci seen loxo yéen xëcc leen ba ngeen àgg ci moom rëkk waaw ci barkeb sëñ Tuubaa waaw ci dara yi seen xol yaakaar nañ ko ci yit nag waaw yal na leen ko defal defal leen ko bu kawee seen jot ndax lii xam naa ni jaral na leen lu ne jaral na leen sëñ tubaa bi jaral na leen lu nekk ndax fa ngeen jóge sori na lool te sëñ tubaa rek a leen ko jaral ndax bu doon leneen a du ngeen ko def kon nag sëñ tubaa mi leen ko jaral yal na leen fay yéen itam lu leen ko jaral sëkk sëkk sëkk sëkk ci barkeem jërëjëf ngeen baal ma àq nag a baykat du doon mën a wax kon Cheikh bas nga jot li ndigal li sëriñ bi waxoon Ja. Ya. waaw mbakki na bungin ngeen ki wona di ci tegaat dis dis go xamni mm الدفاع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا سواحز حسيم كيف كل دي كونتر ولا ما يعملوا بي وخلوا لي أمتلين ين ون لين كل رفت لولير تين رفت لين يور ين ون كو تدوهين ون فسيين ان نكيت أه، برومو مون وما يلقيها إلا الذين صبروا fas yéene nekkit borom yi cër te loolu rek moo koy maye li yàlla xuraan wax kon nag boo jël boo nee nga leeral leen loolu waaw. ni nga leeral yi ba di laaw sa yaati ma